réellement ce qui s'est passé dans ce pays c'est vrai que démb nag jàngat bu bëri ji c'est-à-dire euh, ça ça restera dans l'histoire euh, c'est sûr parlementaire dans l'histoire politique du Sénégal parce que d'abord euh, coulisses yi moo ëpp solo avant parce que dem nañ ba ci biir suñu problème mooy lan moo wundu ak li fu mu jógee amnistie bi amnistie bi ak à qui profite le ce crime yooyu coulisses rek nga ko mënoon xam mm-hmm. le PDS parce que bi ñu ñëwee en commission waa bon deux ou trois membres Pastef la ñu ils uh-huh. pour wax na ñoom ils sont pas demandeurs fa la yem. mais ñu gis PDS envoyé benn benn déclaration pour wax ne ils vont s'aligner sur la position de Pastef de donc ñu gis ne aussi ay. Euh, nos amis parce que on a des parlementaires qui sont qui sont qui sont à ñëw parce que demande mandat d'arrêt international notre ami qui est Wuri qui est Wuri parlementaire ah, bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu lancé mandat d'arrêt oui mu ngi Italie ci ay wax il est député il est député waaw ah, Wuri yaa Wuri ji Diallo qui est en Italie c'est responsable de PASTEF mais qu'est-ce qu'il a fait def comme nii rek mais mandat d'arrêt bi dëgg la wala waaye en principe ñu ngi jàppale boo ñëwee ñu jàpp la donc depuis loolu il n'est pas venu. il est député na ñëw ñu jàpp ko et après. waaw bon y a ah, aussi euh, notre collègue aussi qui est en France Aliou Sall. ñoom daan ñëpp aussi bon xam nga gars yi am à un moment donné bon euh, ku ñëw ñu jàppale donc ñoom. mais ñoom mën nañu voter par procuration. waaw ils ont voté par procuration. Okay. par procuration. donc ñoom ils ont dit que ils ne veulent pas de l'amnistie. Ouais. et ils demandent à leurs collègues de Pastef de ne pas la woon. mais mais bi PDS defee loolu bëgg a Aliou ñëwul ci <laughs> parce que pour nit Pastef lu mu voté loolu laay voté loolu laay voté léegi yéen waa taxaw waaw ñun taxaw par principe on a dit non dès le début dès le début vous ñun pur ak le PIT ak le PIT PIT am na député waaw euh, kii le président de la commission de défense suñu sama mbokk séeréer bi waaw moom as nga fa ak euh, la dame la aussi bi nekk euh, bi siège démb lycée Deme comme secrétaire élu. Mhm. c'est elle a voté abstention. ak aussi waa kër Idriss benn député la ko ñëpp. Mariétou euh, Mariétou ñoom mhm. dañ ne woon dañuy abstenir. abstenir wala non ils vont voter non. Euh, non en en ils ont voté non. ils donc bi ñëwee donc mu nekk benn problème bu mat mais lépp mais. xam nga aussi dire que waa Pastef amuñu stratégie wax ñoom aussi attention <laughs> ñoom comme que ñoom dañ leen wax ne ñoom lay profito mhm. te problème bi mooy ñun ñëpp dans le débat duñ ne mhm. bu ñu du nangu amnistie na parce que les familles il faut qu'on pense maintenant aux familles il faut aux, aux victimes de li li li ministre bi wax ni ça n'existe pas dans notre code dans le code waaw mais bon comprendre na criminalité la wax bien sûr donc c'est c'est c'est les c'est la criminalité donc ñoom ñu ne duñ ko voté tant que amuñu la réponse sur le crime de sang mhm. c'était une porte dérobée xam nañ ni am na ci. am na ci. donc c'était un moyen de de de sortir de ça. bien sûr pour pouvoir voter contre. Mhm. donc tu as vu euh, euh subtilement comment ñoom aussi naka naka nañ ci génne. bien parce que il fallait fa faire face aux familles des victimes. Mm -hmm. il fallait faire face au piège du PDS. Mhm. ñoom aussi wax dëgg yàlla am na ça leur profite mais comme ils sont pas demandeurs ils ont joué le jeu. vu. mooy d'accord nous ne sommes pas demandeurs duñ ko voter bu amee crime de sang pour se protéger contre les contre les victimes. Mm. et aussi pour en profiter. Mm-hmm. pour buñ ko voter wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ñi nekk ci prison bi sonn génn. Mm-hmm. leur leader aussi génn. en fait donc euh, ci ci ci entre ces deux. waaye c'est comme ça qu'ils ont manœuvré suñ woon. woon les destituts prisonniers dinañ génn. dinañ génn waaye suñ ko voté. tamit ñii rey. rey seen day mel. perte nañu seen ça ça mais ils ont vraiment manœuvré en politique. ba yàlla def ñu génn ci. mais yéen avant ngeen di voté amul ay gisante déyante. saa yi ah non lan nga nar a voté saa non parce que ñun aussi on a on a sensibilisé on est même allé voir des députés du pouvoir. waxtaan ak waa PDS aussi. ah vous avez fait ça. oui waxtaan nañu dans les coulisses bu ñu ko voté bu ko voté mais ñoom aussi bon xam nga dans cette histoire là euh, dafa am ay relation d' intérêt. Mm-hmm. xam nga xam nga pouvoir bi aussi ñoom. dafa am fu ñu téye PDS fi ñu mooy attention pour reporter élection bi ñu ngi leen si jàppale. Hmm. donc ñoom aussi. bu ñu reporté dañuy rebattre carte yi. dañuy rebattre carte man kay man affaire bi jaaxal. loolu moo taxoon nag PDS aussi <laughs> ni oui ni noo il fallait dem ba ci biir s'il s'oppose à cette kii qui qui de Macky ñoom ñu ne ah comme que yéen da ngeen ñuy xeex tamit. ñun day génn ci ci affaire affaire Karim Wade finalement ils sont tombés dans le piège.